Euh, ñetteeli ponk ngëm mooy gëm téere yi du ñuy gëm mbooleem téere ya nga xamante ne yàlla wàccee na ko ci samaan duñuy gëm ni moom yàlla téere yooyu kàddoom la ngir yàlla dafay wax wax bu yelloog màggaayam ak matam déet kàddoom moom yàlla di niru kàddu mindaafoon yi ni téere yooyu tamit nekkul lu ñu sàkk ni yàlla dafa wàccee ci bépp yonent téere du ñuy gëm mbooleem téere yi di gëm tamit yàlla lu ñu xamal ci téere yooyu ci ay xibaar wala ay atte li ñuy gëm tamit ne alquran dafa ñëw di nasaxal di folli mboolem téere nga xamante ne jiitu na ko téere ya jiitu nag nekkul duñ koy jàng waaye nag duñ koy gëm ni wàccoon ci yonent ya jiitu woon dañuy jël atte yi ñuy jaamu yàlla ci alquran ak sunna déet ñu koy jëlee ci téere yi nga xamante ne jiitu na dañuy jàng alquran di ci jële atte yi ñuy jaamu yàlla ak ci sunnante bi sallallahu alayhi wa sallam aalam